ay gars yi j'espère que seetaan ngeen épisode bii nii passé ah mais ñu bëri ba tey dañuy posé question ndax Dugal nee moom ah décision bi nga xam ne daf koo jëloon pour dem faati Sangomar nee na daf koy tegaat si suuf mais ñii di posé question ndax Dugal day naxaate waa Dugal dafa bëgg a xeex bi pour ñun moom ñu fa mën a demee mooy Dugal dafa bëgg a nax ba am buntu ndaxte gis ngeen dem na si yaayu Aïssa hmm, nee na dafa bëgg jubo ak Sangomar nag mais moom dafa bëgg a def benn enquête boo xam ni bu boobaa dina xam kan moo ni jaayu Sangomar ak hmm, ak kan ay mbokkam bu boobaa dina xam Sangomar partout ah mën koo féetee fu nekk fu nekk te boobaa ah combat bi te mooy mu faat ko bu boobaa dina gën a yomb si moom moo tax Dugal nii muy def moom ay naxaate kese lañ ko mën mën a jàppee parce que ba mu ñëwee si yaayu ay saar nee na dafa bëgg a juboo ak Sangomar décision bi nga xam ne jëloon na ko mu mën koo teg si suuf mais ñi ba tey ñi ngi si gisaaka ba xam day naxaate wala du naxaate en ñun moom liñ si mën a wax mooy dugal day naxaate te nag bis bu demee ba xam Sangomar ah nan day nekkee moo xam si këram ah xam ay mbokkam te boobaa pour mu am ko dafay génn a yomb kon mm, duraag moom xeex bi moom pour man du du ko mës a bàyyi du ko mës a bàyyi parce que moom xol bi moom nee na xeex bi moom du ko mës a bàyyi parce que Sangomar ni mu ko def dafa métti te nag noonu kenn mësu ko koo def mu koy jégal kon Sangomar moom ba tey na xam ni duraag mi si kaw